Euh, mardi bi passé rek maa ngi woon réunion donc euh, maa ngi assister réunion yi Y en a marre dafa am ñuy wax dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk porte-parole du jour temps yi yëpp caat la a Fou Malade ñoom ñooy wax au nom du mouvement loolu waxtu wax bu jotee dañuy wax hmm. objectif Y en a marre mooy changement ci wàllum société ci wàllum jeunesse avant ndaw ñu bëri daanoo loon dégg ñuy wax ci politique léegi ndaw ñu bëri dañuy wax ci politique boo demee ci Facebook feneen loolu Y'en a na ci rôle bu important avant mouvement amul woon yu bëri amul woon wala ay politique kese ñoo doon créer seen mouvement Y'en a bu mu ñëwee créer mouvement ñaata mouvement nga dégg ñu créer derrière ñooñu tamit nekk ci terrain bi di actionner di def lu ñu war a def avant amul woon tey waxuma la sax Sénégal boo demee ci sous région bi ñaata jeune nga inspiré ñoom ñu créé seen Y'en a marre bopp ci foofu noonu seen sous région ba mu am ñoo xam ne réussir nañu tamit départloo ay régime tu mais loolu kenn du ko wax tey Y'en li mu wax def mu koy def c'est-à-dire li muy def ni moo amul bruit mooy dem ci gox-goxaan ni organiser jeunes yi en association financer leen ñuy def set setal ñiy créer seen ay ay euh, GIE ñiy créer seen ay société di liggéey dugg ci monde du travail gëm seen bopp bañ ko wekk ci politique bañ ko wékk ci maire bañ ko wékk ci ministre bañ ko wékk ci président bañ ko wékk ci kenn am seen business di doxal loolu intéressé wu leen mais tey bu ñu newoon Simon jàpp nañ ko fii kaso nga gis journaliste yëpp daw mais Simon mu ngi organiser fii euh, reboisement comme keroog nu ñu ko defee ak Amada Picasso doo gis benn journaliste parce que sensationnel la ci wàllum kaas lu ñu war a wax ñu ngi koy wax man yàggul dara génne naa tiit moo ñu tere de tu kër gi génne nañ fi ay dellu si génne nañ fi ay xarnu bi génne nañ fi ay tu malal on c'est sorti mais nit yi dañu ne non avant moo gënoon kii parce que lu ñu bëgg mooy dégg ay tël tël te lu ñu xamul avant Y'en a marre nekkul woon ci tël tël tël peut-être dañu doon génn mu am ñu génn ñooñu parce que bu ñu doon génn tamit y avait tout y politique des politiques dedans y avait les mouvements citoyens yeneen mouvement y avait des yoo xam ne ñoom seen gis-gis leneen la woon gars dañu doon taal pneu ñun ñoo doon ñëw di fay pneu yi naan leen mais pneu yi sonalul euh, kenn ci gouvernement bi suñu yaay yi asma yi lay sonal ñun ñoo doon fay yenn saa dañ doon jàppante sax ñu doon taal taal ay loolu kenn waxu ko mi tey bu ñu nee jàpp nañu Fou Malade jàpp nañu ci at jàpp nañu kii ñëpp daw ñëw mais bu ñu nee ñoo ngi fee di jëmbat garab kenn du ñëw ñoo ngi fay di def ay sensibilisation di wax ndaw ñi def nañ dox sa gox def nañ suñu gox def nañu wax sa député def nañu wax ak sa maire ça n'intéresse personne mais on comprend ce jeu tamit et on comprend tamit que sénégalais dañu nostalgique li ñu bëgg mooy dafa am benn benn benn xeex boo xam ne ñoom pour ñoom loolu rek mooy xeex mais non xeex bi instant yi neneen am na ñu bëri tey ñu ngi ci sphère politique bu du woon Y en a marre duñ ci mës a nekk du mës a am. mais les gens ne voient pas tamit affaire bi noonu loo tax ma ne ku nekk ak sa gis-gis mais peut-être dans dix ans ils vont comprendre ñun fan lañ doon bëgg a jëm mais tey am na yu bëri ñuy def ci suuf yoo xam ne mënagul feeñ léegi. mais nañ dem ci kanam am na yu commencé feeñ nag mais nañ dem ba ci kanam xam nga au waxu waxu sénégalais parce mooy koo xam ne moom su fekkee ne dafa tële ci dara mënul dara rek day ne non kii waxu ko mën bu ko mënee rek c'est parce que geer nañ ko non c'est parce que am na ñu ne ci ginnaaw no c'est parce que gëmul ne volonté mën na def dara xam nga tey. ñun du ñu parti politique boo xam ne lu ñu def rek dañuy ñëw fëgg suñu dënn ne kaa leen xool ñoo def lii on n'est pas dans bu ñu waree génn suñu dernier grande sorti bu ñu def kañ la moo doon le 7 avril bee passé place de l'Obélisque ku ñëw place de l'Obélisque gis nga nu mu mel parce que loolu jaroon nañu génn dafa am lu ñu doon wax mais xam nga tey bu ñu demee ba tey médias yu bëri dañ leen jënd presse bi ñu bëri dañ leen jënd tey dañuy tiital ñu bëri ne leen wéy xam nga gars yi fii dañuy tëjaate kaso ba pare fàttee la et cetera yaa ngi rey benn certain euh, mer benn certain naxar auprès des population yi nga xam ne tey ñoom dañuy dem ba ne ah nañu bàyyi nii quoi de toute façon xeex bi jaru ko mais. teewul am na ñoo xam ne dañuy continuer xeex googu noonu parce que xeex googu noonu peut-être sacerdoce la ci ñoom mënuñu ko bañ a xeex mais tey sénégalais duñ ko comprendre mais lépp loo xam ne amul lu xew Sénégal lu jar wax lu jar a def sorti te Y'en a marre taxawu ci amul amul benn jour keroog moom laa doon wax benn journaliste ma ne euh, parrainage dégg nga ñu législative dégg nga ñu bu ñuy def euh, référendum dégg nga ñu ma ne ko wax ma benn fait majeur bu am Sénégal coupure ndox yi dégg nga ñu te déggoo Y'en a te non seulement dañuy wax léegi la différence xam lan la mooy dañuy wax ci kaw di génn et di saafara ci suuf tamit di dem di laajte c'est quoi les vrais problèmes di ko régler ci suuf. c'est ça peut-être tey la différence on est mature dañu màgg nañ quoi mais c'est que sénégalais moom dafa tàmm gis benn affaire pour moom bu gisul rek Y'en a ci loolu mooy Y'en a marre amul mooy ils sont pas dans leur rôle ñun du ñu du ñu nu mu koy waxee ñun duñu nekk sacrifice u kenn xam nga tey dafa am ñu bëri ñoo xam ne boo xoolee ci seen combat ils se sont sacrifiés pour leur peuple mujjul fenn alors qu'ils étaient plus utile bu ñu dundoon pour leur peuple ñun nag du ñu bétaayu kenn tey ay yenn politique yi nga xam ne dañuy créer ay affaire bëgg a gars yi génn ñëw ci kanam ñoom la ñuy dóor ñoom la ñuy liif ñoom la ñuy gaañ ñoom la ñuy sëf lépp après ñoom ñu dem tëdd seen climatiseur tranquillement non on n'est pas dans ça te duñu ñu mës a nekk ci loolu en matière de mouvement yi yokk xam nañ ci luñ ci joué en matière de jeunes yi jël prise de conscience engagement politique xam nañ liñ ci joué te bépp sénégalais doué d' buy am benn lecture xam na guerre bu ñuy wax guerre bu amoon ñaata om politique ñoo fi sonal nguur gi seen dossier dañ ko ñëw xalab ko ci presse bi ñëpp di gis ñëpp di dégg ñoom ñëpp mës nga dégg ñu xalab Y'en a marre ci net bi ne xoolal jox nañ leen ñaata at sénégalais yaa ngi koy wax bu amoon ñii nii ma gis ñii nii nga xam ne di la xalab ci ay détails yu ay waaye takk na jabar takk na ñaareel waaye kii na fii waaye kii diw day doxaan ñi nga xam ne dañu nekk ci détails yooyu ak lépp li leen di yaanaamaar di yekk bu ñu amoon benn as tuut preuve wala këyit gu ndaw song nañ bu yàgg wala étalé nañ ko ci net bi mais amul tey amul kenn si ñoom kuy mën a taxaw ne Simon jox naa ko temps wala ger nañ ko temps baa ngi nii virement baa ngi nii wala photo yaa ngi nii film yaa ngi nii bi ñu koy jox xoolal nii la soloon nii la melo ñu ko jox a ngi nii amul mais sa les arrange de gëmloo loolu Sénégalais yi mais ñun xam nañ yàlla xam na ñi am lecture bi may wax nii moo naan benn lecture mais tey temps yi kan moo aar du Sonko lan lañ nekk di ko wax xoolal bassesse yu ñu nekk di ko def di ko wax c'est la même chose dañuy créer ay affaires di ko teg ci ndodd ñi nga xam ne. peut-être ngi susciter espoir auprès de la jeunesse pour que jeunesse pour divertir leen pour que jeunesse bi dem ci leneen loo xam ne ce n'est pas essentiel ñoom ñu mën a continuer mais y en a marre toujours là dañ dem ba ci kanam mhm. ñun duñu régime kenn falu faluñu pour ñu changer dara kenn on nous a pas donné benn pouvoir boo xam ne après askan bi day taxaw naan ñu résultat non sénégalais yi dooleen leen comprendre gis nga tey yaanaama bu ñu corrompu woon xamul lan moo gënoon yomb bi ñuy woowee na leen kaa leen nekk ministre kaa leen nekk PCA kaa leen nekk kii di am ay deux millions de salaire am say voiture say bon d'essence villa et cetera loolu moo gënoon yomb mais dañu ne non on préfère rester ce dem wuti suñu ay projet ñëw di ko dérouler état bi jàpp ci ñu koy dérouler kon da ngeen bëgg a wax kenn financé wu leen yéen ngi déroulé seen projet dama ne projet suñuy financement ay bitim réew koy lañ koy kii état bi moo woon njëkk ci ñun di financé parce que lu ñuy def luy jëmale Sénégal kanam la mais non non seulement dañ koy duñ ko financé mais en plus dañ lay diaboliser naan la wéyee ay ay ay ONG ñoo ne seen ginnaaw di leen jox xaalis pour ñu déstabiliser Sénégal lu nekk wax nañ ko fa waaw salaamaaleykum man lay Saa Yama Wen Saa man maa ngi seetaan Télé Sénégal.